sentiment mbégte sentiment contacté di si sant yàlla bu baax a baax parce que événement bi képp ku ko fekkee da nga si war a sant yàlla événement bi commencé na lu ëpp 30 man mi sama sama mag ñoom ñoo commencé ñoo fii bëre mooy sama taaw donc événement bi xale yi nga gis nii xale yi nga gis nii ñuy def nii léegi bu muy commencé fekk judooguñu ñi daan commencé événement bi ñoo jur xale yi tey yi nekk nii donc c'est plus de 30 ans ñi nga am relation bi entre Jembereng ak Ñoomun moo tax képp ki fekkee événement bi événement chosan la événement retrouvaille événement culture générale bi nga xam ne mooy cosaan joola cosaan joola dafa bëri façon mais bii chosan képp jola, mënoo ko méngale ak ben chosan, mooy chosan bëri bi nga gis ne ak ekonkon bi mais li tax mu am mooy importance bi day indi jàmm day indi développement day indi njaboot daaw ñoom ñoo ñëw dëkk ba ñoo mun ren ñun ñu ñëw fii ñu daje confronté confrontation bi da am trois jours ñu naam dëkk bi ak dëkk bi ñu mën ren

di nga fecc di nga daw di nga yuuxu donc jàmm rek moo tax lii am fii donc euh, xaw ma nag tur boobu dama ko dégg rebelle mais rebelle du def lii rebelle amul jot bu def lii si li ma xam si rebelle donc euh, man bu ma rebelle amul Casamance parce que xoolal lii foo dem boo demee mulom di nga fekk lii boo demee Kabrousse di nga fekk lii foofu moo dem di nga fekk lii

jàmmalante def na cosaan carrément sama ñaan bi ma am aussi mooy oh, yal na xale yi am jàmm yal na waa Jembering am jàmm yal na ñoomun am jàmm yal na Sénégal yëpp am jàmm parce que bu ñu amuloon jàmm kenn fi ñëw donc yal na jàmm bi continuer te yéen aussi maa ngi di gërëm di leen kenn amul seen fay tey jii interview bi ngeen ma def nii ngeen permettre ma ma lancer appel jàmm pour ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla jàppale leen ci seen liggéey yàlla li ngeen yaakaar ci seen liggéey yàlla ngeen ko am ngeen am avancement bu rëy ëllëg ngeen toog ci bureau yi ngeen yónnee yeneen xale aussi ñu ñoo def liggéey bi seen place.